jàmbar génnal ci li nga nekk. Naby Vision bàyyil affaire merci yi nii ngay jéem a ñëw di teg ci table bi. ay affaire dàmp ak ay affaire lu paanaar ak yooyu noonu yow ñëpp war a dugg ci gaam yooyu noonu ba mu des yow parce que yow gars yi dañoo yor say dossiers yu tàng jër yu sadik gis nga booy yi dossiers yi ni ñu commencé génne te am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni tey yow affaire merci boo ci duggee liy tooy ci yow lay jugee sa Sonko dañ ko jiiñ dañ ko jiiñ mais yow danga def lu ne weng ñu koy gis kii dañ ko jiiñ ba pare tribunal setal ko tribunal moo ko àtte nii que viol amul ñu dem di jiiñ ay affaire de nu mu tuddati waaye détournement de xaw ma lan nu mu tuddati waaye damay fàtte liñ ko jugé corruption de la jeunesse loo xam ne àdduna ba mu daj mosuma dégg ñu jugé ko kenn yow nag ay preuve yu leer naññ la sénégalais yi am ci yow kon génnal ci li nga nekk ngir yàlla ak yonent bi jëmal nga utti leneen loo opposé woo nga bàyyi affaire yu mercier affaire u saag yeeg ñàkk fayda yi nii nga nekk tu es trop petit génnal ci yii balaa gars yi dugg sa biir famille Naby Vision génnal ci yii magum jëmm nga mais kenn di ngay opposé wu kenn du ko opposé wu wax naa la chaque jour mën la demal nga uti ay conseillers yi xaaral ba heure wax jot nga do ko wax mais nga melni am bongo ni lu lu ne randang rek nga génn non mais c'est pas sérieux quoi patriote ma bëgg Ousmane Sonko sa yu génnee rek sa way mbir mi lepp leer sa yu génnee rek affaire bi lepp leer ay wa bu fekkee da ngay opposé wu wa acca yoon waa ngi nii bu fekkee dangay ngay opposé wu acca yow usmaan Sonko may na la lépp nee na la boo bëggee mu débat ak yow ci économie réew mi ci ni ñu yoree réew mi waaye génn di wax ay saagaame ak yooyu maa bëgg usmaan sonk saa yu génnee lépp leer lépp leer na aywa gars yi opposants yi ñëw leen Thierno Bocoum aywa ci tali bi doo ko gis mukk ci tali bi baat naa ci yàlla ne doo ko ci gis sawaay ñii duñu ay opposant ñii ay nit yu ñuy fay ñuy wax lañu Ousmane Sonko nag leeral na affaire bi maa bëgg Ousmane nag saa yu sama xol bi seet. Sénégal. Naby Vision opposition bu Sénégal war nañu xoolaat seen taxawaay yi li tax ñu war a xoolaat seen taxawaay mooy nit boo koy opposé opposé ko ci li muy wax ak ci lu muy def ak li nga xamante ni moom la am comme rapport par rapport par rapport ak yi nga xamante ni moom mooy les faits étatiques genre.

mën na leen téye ci cardan boobu te loolu ça arrange maanaam tey arrangé na ko mu téye leen ci débat wu ab jox ko maajoor jox ko jóob xaw ma nu mu demee noonu <laughs> waaw laal la ci wàllum saak yow nga laal pantalon am sud bote fii kii nangam fii léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy public bi di seetaan aussi ñii di supporter Ousmane Sonko ñii di supporter ñeneen ñi ku si nekk di laal sax ayibu moroom loolu arrangé na état li tax mu arrangé état mooy dina mën a dérouler li nga xamante mën na ko dérouler mu nekk lu baax wala mu nekk lu mauvais dina ko mën a dérouler mais bu fekkoon dañoo am benn opposition boo xamante ni c'est un c'est une opposition bienveillante boo xamante ne tey les questions culminantes yi nga xamante ne war nañ ko teg ci table yi moom lañ ni bëcc ci table yi ñun ñi nga xamante ni ñooy toog di seetaan di spectateur dina am lu ñuy teg suñu bët mën ci débat mu nekk loo xam ne dina jëriñ Sénégal mais si biir jamono débat bi nga xamante ni moom la opposition bi di indi état bi di ci indi ay réponse amul benn intéret bu mu indil peuple parce que indi lu ñu lu ñu yokkal indi lu ñu loo xamante ni dinañu génnee ci guuta li ñu indi rek mooy kii moo gën kii kii moo gën a baax kii kii ci débat wu nit lañ toll ba tey te war nañoo changer li tax ñu war mooy jamono bi dafa weesu fu ñuy débaawee ni usmaan sonk moo gën Bougane wala Bougane moo gën usmaan Sonko wala Ousmane sonk moo gën Thierno Bocoum wala Thierno Bocoum moo gën Ousmane wala ñu ni Thierno Alassane moo gën Thierno Bocoum wala Thierno Bocoum moo gën Abdourahmane Diouf wala Abdourahmane Diouf moo gën diw dañoo war a weesu foofu toll ci foo xamante ne Sénégal dañuy taxaw nekk benn nekk benn sentinelle ñun état bi ak li nga xamante ni moom la ñu war a def bu baaxee ñu ne leen ah sama gars yi bon courage et bon continuation parce que li ngeen di def nii mi ngi ci temps bu baaxul ñu ne leen eh kaay leen li ab Abdourahmane Sow doon wax benn jour naan jiite baax na mais boo boo demee nangul ñu xëcc seti seen la kaay ñu wax la lii dafa am solo li tax mu am solo mooy loolu bu amee gis nga état bi nga xamante ne ñoom gouvernants yi ñoo ci nekk sax dinañ ne ah gaa yi ñu xool te bàyyiwuñ ñu dina am yoo xamante ne duñ ko def mais ñun buñ taxawee ci débat yi nga xamante ne c'est des débats de bas étage wax dëgg yàlla état bi dina def lu nekk te wekk ñu day jafe parce que ci débat yi nekk la. Naby Vision. te wekk ñu day jafe parce que ci débat yi nekk la gis nga assemblée nationale buñ ñu yabee yab bu toll bu ku nekk taxaw biir assemblée nationale taxaw ci pupitre bi di wax naan man député diw laa rek c'est que ñun la bu bëkk yabee waxamaane sa doxin wala ñun nañuy doxee moo tax suñu dirigeant yi yàpp ñoo mais am na ay pays yoo xam ne amoo fitu taxaw fa naan man député Macron la wala man député Nangam wala man député Joe Biden wala man député Kagame wala man député diw am na yoo xamante ne amoo fitu def ko fa parce que seen peuple yi taxaw nañ taxaw boo xamante ni boo defee benn affaire luñ la ko baal te soos bi ñu la nar a soos ci réseaux sociaux yi rek dina tax nga moytu yenn yi mais Sénégal dañoo dem ba tàmbal suñu dirigeant yi ni yéen nit moo leen teg foofu du ñun ki leen fa teg moom ngeen war a gërëm pas ñun alors que ñun ñooy cotiser pour lépp loo xamante ne am nga ko comme privilège alors que ñun ñooy cotiser pour nga yow am sa sa sa toogaay ba fuuy ba mun a waxee nen ni alors que yow sa statut sociale bu changé ñun ñoo tax peuple mu changé parce que ñun peuple buñ porté wul woon kooku tey bind la ci list ba nga nekk député tey kooku du mën a nekk li mu nekk balay def yow li nga doon ça veut que ni lépp ci ñun la commencé te lépp ci ñun lay jeexee loolu il faut ñuy gouverner xam ko pour mën a comprendre dëgg-dëgg enjeu yi lan la te loolu ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy commencé ñooy jeexal ñun ñoo war a porter boobu combat di wax nit ñi dëgg te mu yem ci dëgg kese maanaam ñu génn ci passion xam nga. Ben, jour Ousmane Sonko waxon nako ni dañoo wara a dépassion dañoo war a débat bi fofu lañu wara tollu makoy wax patriote ni len yeen aussi war ngeen a ci passion ak ki dafa bañ diw. Naby parce que tay boy wax di critiquer Ousmane Sonko c'est pas la personne de Ousmane Sonko ngay critiquer mais da ngay critiquer Ousmane Sonko par rapport ak waxam par rapport ak lu muy def c'est un humain qui est faillible comme tout autre humain. booy critiquer Macky Sall waa APR dañoo war a comprendre ni du mag la personne de Macky Sall ngay critiquer mais Macky Sall par rapport ak gestion wam état moom ngay critiquer ñu génn ci da bañ Macky Sall wala bañuloo ko c'est une personne faillible comme tout autre humain loolu loolu la nit ñi war a xam comprendre ko bis bu loolu amee ba compréhension boobu dugg Sénégal dina commencer nag rigoureux ci par rapport ak gestion am ci ñii ñu fal ci par rapport ak ñun suñu diggante ak gouvernant yi ak si li nga xamante ni moom la ñuy def te dinañ maytu nag yu bëri yoo xamante ni mi nga am dootul mën a am parce que dinañ ni peuple bi yeewu na yeewu boo xamante ni ba pare am ci taxawaay boo xamante ni wax dëgg yàlla kilifa maanaam boo xamante ni peuple la def kilifa dootuñu yab yab bu toll ni nga jël affaire boo xamante ni ñëpp ko bokk li ci def la neex lii faut nit ñi bàyyi ci xel. te dama bëggoon indi bi jàngat pour nit ñi xam ne wax dëgg yàlla nañ maytu nañ maytu parce que bu fekkoon ni situation rek mooy tax nit daal di toog fi nga toog daal di kuul kon ñun ñu kuul <laughs> kon wax dëgg yàlla ñu toog suñu rukk te kuul parce que ñu ngi sant yàlla nag voilà loolu moom bay boo nit ñi xam ko voilà TikTok am na ñoo xamante ne tey par exemple dañuy def benn jàngat mu leer leen ni jàngat bi day ëpp dix minutes ñu ciy wër dara dañ koy def ay dogat dogat première partie deuxième partie troisième partie ñun ñu préféré bu ñuy def benn vidéo même buy jël quinze minutes wala buy jël dix minutes ci benn vidéo lay nekk kon wër dara taxuñoo jóg te tontuwaa la ñu koy wax <laughs> di leen wax ni Naby Vision wër dara tax a jóg ci TikTok bi pour nga am ko day jafe waaye nag technique yi ko nit ñi di amee xam nañ ko mais dañoo am temps def ko jërë ngeen jëf